téléspectateurs yi sama samadiyya TV ba tey noo ngi fii ci dëkk bi nga xam ne moo di Touba al sax nekk ci grande euh, conférence bi nga xam ne mooy cérémonie bu mag bu ñuy def tey nag ñu ngi toog ak kilifa gu baax kilifa goo xam ne waa réew mi yëpp ak waa biti réew xam nañ ko muy Serigne Bassirou Mbacké moom Cheikh Abdoul Khoudous mi nga xam ne moo yor kàddoo ko jëmm ji nga xam ne moo di Serigne Bassirou Anta Niang Darou Mouhty di liggéey liggéey bu am solo ci yoon wi waaye itam di ab keno ci yoon wi ñu koy jël nag ci seen télévision As-Samadiyya TV Serigne bi ñu ngi am mbégte di ànd ak yow ci jataay bu baax di la jot jottule kàddooy nuyoo ak yooyu ziar yu bàyyikoo ci sunu kilifa Serigne Abdou Samane Mbacké moom Serigne Chouaïbou ginnaaw bi itam ñu laaj la itam li nga xamante ne ji itam moom nga nu mën a baaxee bokk yi ci bés bu bi rek ak teewaay bi balay si ok jërëjëf ñoo ngi sant yàlla sunu boroom moom yi nga xam ne may na nu fekk waat ko te tal ko defe naa defoon nañ ko daaw moom mi nu ko may nag dañ koy ñaan ginnaaw buñ ko sante mu nu may nu nu delluwaat ko fekk ay yoon yu bëree bëri di nuyu sëriñ Abdou samat ak njabootu sëriñ son yi bu gépp di sant yàlla ci lii nga xam ne e, moom la taxawee benn mooy bu ñu demee ba ne sëriñ Touba téeméeri at yi mu nu woon ginnaaw mat na ren ñu gis lu mel nii nga xam ne bokk na ci li war a mën a ab dañ koy sant yàlla sunu borom te loolu it sant ga war na ndax it nag bàyyi ñeneen di la waxal di la woneel di la di la di la dëggal di la di la di la déglul loolu dañ koo weesu kon nag liggéeyam bi yàlla na ko maamam nangu ci barke bay juróom sunu sëriñ suñu kilifa sëriñ Suhaybu bu mi nga xam ne léppam diine lislaam la woon léppam sëriñ Touba la woon te yaakaar nañ ne liggéey bi itam dina delluwaat ci liggéeyam boobee nga xam ne li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ku sos lu baax lépp lu ci waay def ginnaaw bi kooko dina am tuyaaba waaye yow ma koy sosoon it da nga ca am yaakaar naa ne liggéey sëriñ Souhaïbou bu ci lislaam ci alquranul karim ci liggéey ci yoonu sëriñ Tuubaa bi kenn du ko nattable te kenn duutu ko nattable ba mukk lii mu ci taxaw itam nag lam ci foog yal na ko ci sunu borom defal loolu lu kawe njortu ndax sëriñ Tuubaa euh, day mayog sunu borom gum nu may goo xam ne ku ko xam ku nekk jariñoo ko noona la nga ca bëgg lépp mën ko ca am dafa wax mel ni bokk barki dem ñu naan taw bi ak ndox mi ko ma ne ko waa ndegam moom bi muy dem ci géej gi dafa dafa muy dem bi muy dem Gabon dafa julli woon ci géej gi xanaa ku mënta julli ci géej mën a xuus ci mi ba dem sa kër te Serigne Touba war na noo jaral lu raw loolu kon nag Serigne Abdou Samad ginnaaw bu ñu ko santee gërëm ko di feddali suñu kolo rek lu ñu jàpp ci moom ngir wayjuram ak taxawaayam ci yoon wi ak taxawaayam ci eh, mën naa ne daarul Mouhty ndax a ah, Cheikh Ibrahima borom Darou muuti mi ngi ci këram te loolu ci coobaram la ko defee ak xam li nga xam ne mooy mooy li li am sëriñ Mahmoudane Jobe dafa mos a tontu sëriñ Abdou Khoudous baat boo xam ne da ko ne sëñ ma sàmb bu mosaa ñëw ci borom daaru waxuma la dara waaye day day day buub bi ba mu set bala moo jox borom daaru loxo bu dikkee itam day toog jël ay tànki borom daaru teg ci kawam di bës ak li ñu bokke Mamour Anta ma sëñ doon Jobe da ko caa wax baat boo xam ne bu am solo la dafa wax ne damaa jàpp ne sëñ Massamba loole muy def daa bëgg sëriñ Touba ba tax na képp comme xam ne sëriñ Touba teg na la fenn rek mu def la noona te xam ne fi fi sëriñ Touba teg borom Darou Mouhty defe naa ne sëriñ Abdou Samane nag mi ngi ci biir loolu xam na sëriñ fi mu teg borom Darou Mouhty ci ay waxam ci ay jëfam ak njabootu borom Darou Mouhty kooku noo ngi koy seereel ñëpp di ko xamal ne ko daal noo ngi ànd ak moom ci biir ak ci bitti lépp day ñaan yàlla sunu boroom mu sàmm ko at aar ko ak njabootu ko sëriñ Souhaïbou ak njabootu ko sëriñ Touba gépp te xam ne liggéeyu sëriñ Touba moom nii rek la waxtu wu ne daal dañuy ñaan yàlla sunu borom ñu bokk ci ñi nga xam ne du ñu mujj pusab yi mu réer mukk yàlla ko yàlla defal ci barkeb sëriñ Touba ñaan ñu fekk ko déwén yu bëree bëri ñaa koy nuyu di ko sant di ko gërëm di leen sant di leen gërëm jërëjëf Mbacke Balla ñu ngi lay ziarewaat bu baax di am mbégte bu baax ci kàddu yu rafet yu jotale te defal ñu dégg ak topp kon mbokk yi en direct As-Samadiyya TV ba ci kanam incha allah salaamaaleykum wa